ñaan sama doom yàlla xippee ci àjjana Cheikh Ndiang Diop ba mu xale bu ndaw laa ko yore ba tey fii laa tëdd sàng laa yeew ay 6 heures laa yeew dem fii sama benn dëkkandoo bi fii léegi ci laa jógee taxaw ci mbedd mi benn xale bu góor fekk ma fi na ma te xanaa yëgoo xew ma ne ko man de li xew yëguma ko mu ne ma nee nañ bàyyi Cheikh lañ dóor bal ci tali maree bi ma ne ko da ngay wax rek léegi ci laa tëdd dugg si biir kër gi tase ak papa mu ne ma rey nañ sa doom ma ne kan mu ne ma bàyyi Dieu suñu xol yi moo jeex suñu xol yi moo jeex yi moo jeex suñu yi moo jeex xol yi moo jeex ay xol moo jeex waaw ay li ñu denc bëri xel yi moo jeex fipp jot na léegi xol yi ñoo bees loo fi njiit bi ñu bëgg tey gi ñu terroriste yaay bordel